wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim noo ngi tàmbalee suñuy kàddu ci sant suñu boroom mi nga xame ne moo ñu xéewale ñi fekke woon jataay bi daaw fekkewaat waat ko ren di fekke ko ay déwén yu bare ci barkeb Serigne Touba di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu yu ziyaar di ko jëmmale sunu kilifa yu tedd yi ñi ànd ak ñoom jotaay bi di ñaan ñu jotaleel ñu ko Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal ba lépp loo xame ne yéene na ko liggéeyal Serigne Touba. mu àggale ko te mu ànd ko ak moom di jaarale nuyoo boobu ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xamee ne moom lan euh, maamam lan dara jaale bis bu tedd bi di nuyu kilifa yu fi teew yépp di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan suñ borom nangul ñu suñu jaamu yàlla yépp di leen masawu coono itam ndax koor gi xat na eh, waree fi itam bari na lool waaye teewut danoo bàyyi seen yitte yépp ñëw wuy ji woote bi nga xamee ne moom la waa kër soxna may woo leen waxtaan wi nag du gudd ndax ni ma ko waxee jataay bi xat na kon yi munta ñàkk rek la ñuy wax di am mbégte bokk eh, jataay Cheikh Mouhamadul Makhtar mi nga xamee ne ñoo bokk nekk Maroc xam naa ne lu ci lëng dana ko mën a jubanti ni muy tëdd nag mooy ni mu ko waxee rek ndondal yoonu murit ak naka lañ ko war a sàmmee noonu mooy teen loolu nag dañ koy séddale ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi danañ wax ndono ci lislaam mooy lan buñ paree danañ ci teg ana lan lan tudde ndonol yoonu murit lan lan ci jublu buñ koy wax buñ paree teg ci ana naka lañ koy sàmme ba ñi nga xamee ne ñi ngi ñëw ñi mën leen koo jox na gën a rafete bu ñu ko jataay bi maye itam danañ wax cheikh mouhamadou lamine baara radiallahu taala naka la jëmmale woon euh, sàmm googee ak naka la ko doon dunde alxifaasu ala turaafi mooy mooy teemu waxtaan wi turaaf nag buñ koy wax buñ delloo ci al raaxib al asfahaani nee na turaaf mi ngi jugale ci euh, mi ngi jug euh, cosaan li waaw la woon wuraaf ñu soppi taagi waaw ak alif di wax turaas waaye wuraas moo nekkoon cosaanul baat bi bu delloo ci alquran danañ fa fekk baatu turaas wa taakuluuna turaasa aklan lamma wa tuhibbuuna almaala xubban jamma suñ boroom mi ngi wax naan da di lekk ndono li nga xamee ne moom lañ leen fi bàyyeel lekk gu metti waaye da bëgg alal lool kon loolu aw ŋàññi la ci ñi nga xamee ne ñoom la xitaab bi jublu ndono nag buñ ko waxee liñ ci jublu mooy moomeel goo xamee ne dafa tuxoo ci nit ñëw ci ci koy donn ak moomeel goo xamee ne dafa toxoo ci jëmm ñëw ci ki koy donn ci lu dul contrat boo xamee ne am na fa kon alal ji nga xamee ne moo toxoo ci nit jëm ci nit moom la ñu tudde ndono kim toxoo ñëw ci moom moom la ñuy tudde ki nga xamee ne moo donn alal ja noonu la ñuy waxee ne mënees naa wax ne donn naa alal ci nit waaye mën naa wax mën na wax na donn naa nit diw donn naa ko wala diw donn naa alalam moo tax alxuraan di wax ne wa warisa suleymaanu daawuda nee suleymaan donn na waajuram seydina daawud ba tey manees naa wax ne donnu le ma nàngam donnu le ma nàngam alxuraan mi ngi wax naan wa awrasnaaha bani israila na ak ñam ñam àndaloon ban bewee ba suñ boroom alag leen nee na xéewal ga nekke woon dama ko donn le banu israil sëriñ Touba itam buñ delloo ci ay mbindam danaan fekk mu naan yàlla donnuloo na ma téere bi alif lam mim bu mu koy firi aw rasani alkitaab aw rasanillahu alkitaab ba tey képp koo xamee ne yàlla daa def nga am alal joo xamee ne sonnoo ca defoo ci benn coono yàlla jotale la ci ba tey dees na wax nag dafa donnu alal ja yonent yi alayhimu salaatu wasalaam buñ delloo ci alxuraan dañuy fekk ñiy ñaan njaboot boo xamee ne dana leen donn suñu boroom mi ngi wax ci lisaanu Seydina Zakaria fahab lii min ladunka waliya yarisu nii wa yarisu min ali yaquba wajaalhu rabbi radiya mi ngi ñaan suñu borom mu may ko ak njaboot boo xamee ne dana ko mën donn waaye liñ jublu ci ndono li ñoom yonent yi liñ jublu ci ndono yi du alal ndax ñoom alal amutoon euh, valeur ci ñoom alal dañ koo xeeboon moo taxoon kenn ci ñoom du ko njëkkante waaye liñ doon ñaan ku leen ko donn mooy yonante bi ak xam-xam bi yoroon ak ngëneel yi nga xamee ne moom lañ làmboo woon kon fu ñu déggee di ñaan suñu borom mu may ko doom di ko doon lam bëgg ñu doon ko du alal waaye lam bëgg ñu doon ko mooy xam-xam bi nga xamee ne moom la amoon walla yonente ga wala ngëneel ya wala valeur yi nga xamee ne moom la jikkoo woon te loolu li ciy firnde mooy wax ji suñu euh, wax ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna maachara al anbiya la nuuras ma taraknaahu sadaqa nee na ñun mbooleem yonent yi kenn duñu doon lépp luñ fi bàyyi ci alal sadaqa la dañ koy saraxe loolu amuñu ko firee ne ñoom liñ bàyyi mooy xam-xam xam-xam boobu sarax la ndax ñëpp ñoo ci yem ku góorgóorlu rek man ngaa jot ci xam-xam bi nga xamee ne moom la ñu fi yonent yi bàyyi ba tey alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne wa inna al ulama wa inna al al ambiyaa lam yurisu dinaaran wala dirhaman walakin والرث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر nee na boroom xam-xam yi ñooy ndondoy yonent yi ndax yonent yi donaloowun bàyyiwun alal donaloowun alal donaloowun dinaar wala dirham waaye liñ fi bàyyi ngir ñu donn ngir ñu donn ko ci ñoom mooy xam-xam nee képp koo xamee ne jël nga ndono loolu na xamee ne am nga cër bu mag cër bu rëy bu delloo ci alxuraan dañuy fekk suñ boroom di melal boppam wane ne moom mooy donn àdduna ndax àdduna lépp day jeex suñ boroom rek mujj fi nekk moo tax bokk na ci mele suñu boroom yi nee na maay donn àdduna walillaahi miraasu samaawaati wal ardi ndonol àdduna ñeel na yàlla ndonol àdduna ci suuf wala ci kaw bu ñëwee ci che cheikh cheikhina cheikhuna cheikhul xadim radiallahu taala anhu moom naka la jàppe woon ndono ana ndono lan la ñu fi bàyyi moom cheikhina ahmadul xadim moom dafa jaar ci yoon wi nga xamee ne moom la yonent yi jaaroon dafa jël alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi def ko alalam alal ji nga xamee ne du jeex ba mukk waaye def ko ndodaam ndodaam gi nga xamee ne day sax ba faaw bu delloo ci ay mbindam dañuy fekk muy wax ne qiraatuha kanzi wa jaahi wa uniltu biha kawni ladallahi da sidqin nee na jàng alquran mooy sama alal mooy alal yi nga xamee ne moom laa am mooy sama trésor mooy sama daraja mooy sama tedd nga daraja ji ma am nga xamee ne moom yàlla rek moo xam nam toll nee na ci alxuraan laa ko amee mi ngi dellu wax ne alalam mooy alxuraan mooy xadiis mooy ay teggin waaye du dajale wurus wala xaalis kanzil kitaabu wal xadiis wal adab laa jamoo fiddatin wala jamoo dahab ba tey mi ngi dellu wax ne yawma qiyaam yowmal qiyaam nee na la muy àndaale bu dee peese jëf la muy ca balance mooy yàlla ak bu yonenteem ak alquran nee na moom kenn du ko xisaab xabatu rabbi wa rasula wal kitab mustaxniyan an il xisaabi bi thawaab nee na buy ñëw yowmal qiyaam ndax yowmal waaye nee na moom jëfam mooy alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak suñ borom ba tey mi ngi dellu wax ne alal ji nga xamee ne moom la ñu doon ca moom la cay sax mooy alquran ak xadis bi xidmati qurani wal xadisi yasbutu laa bi dahabin mawruusin foofu nag mën na noo laaj ana lan mooy ndonal yoonu murit bu nu waxee ndonal yoonu murit ana lan lañ ci duglu gëstukat yi nga xamee ne ñooy gëstu ci yoon wi ku demee ne ka na Abdul Wadud nee na ndonal yoonu murit mooy lépp loo xamee ne Sëriñ Tuubaa bind na ko wala ñu askanale ko Serigne Touba moo xam ay wax la wala xalaat la wala lépp loo xamee ne ña àndoon ak Serigne Touba ba am ngërëm moom bindoon nañ ko wala ñu askana leen ko moo xam ay wax la wala ay xalaat la wala ay jëf la kon mën noon a wax ne histoire yoonu murit dafa bokk ci ndonal yoonu murit bu nu waxee yoonu murit histoire ci ndonal yoonu murit la bokk waaye jaar-jaaru Serigne Touba itam ci ndonal yoonu murit la bokk ak jaar-jaaru mag ñi nga xamee ne liggéeyal Serigne Touba ba làq ngërëmam yoonu murit nag mën na noo laaj. ana lan lañ ci jublu yoonu murit mi ngi jugati baat bi mi ngi jugati iraada al iraada mooy bëgg dara ci sa xol bëgg dara wala jublu dara ci sa xol wala namm dara loolu mooy iraada waaye ci lislaam al murit wala iraada mooy koo xamee ne ay jëfam daf caa bëgg ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla la namm ca la muy def namm ca àdduna ndax kuy jëf benn ñaar moo lay tax def benn àdduna tax lay def wala yàlla tax lay def minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al axira suñ boroom nee am na ci ñoo xamee ne la tax ñiy jaamu yàlla ak la tax ñiy def àdduna tax koom-koomu àdduna moom lañ yéenee ca lañuy ñuy jëf waaye am na ci ñoo xamee ne nag tuyaabay suñu boroom ak àllaaxira moo tax ñi jaamu yàlla kon buñ waxee almurid ci lislaam mooy koo xamee ne ay jaamu yàllaam ak jëfam def caa bëgg ngërëmul suñu boroom def caa bëgg tuyaab yoonu murid nag mën nañ koo me man noonu wax ne mooy woote diine bi nga xamee ne moom la Cheikhul Khadim doon woote te jubli ca yeesal lislaam ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yoonu gaay ya baax ya gaay ya nga xamee ne seen yitte ak seen bëgg-bëgg mooy ngërëmul si borom mi ngi ko yëglee ca Mbàkke Kajoor ama assashin 1301 ci gàddaay bi foofu la déclaré woote boobu dëppoo 1883 ca daara ja nga xamee ne moo nekkoon daaray waajuram Maam Mor Anta Sali yàlla na ko yàlla yokk ngërëm